Salut les amis de Sport TV et de Babo Show. Merci encore Gad de la confiance renouvelée. Merci de des likes, merci de des abonnés, merci également de baisser des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Inbox Sénégal fait Forêt Montenegro 14 régions du Sénégal. Rouk rouk hari gongo hari leen di également ci la l'hôpital et ci kër février. tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñëw rek jàmm. ci yi aussi erreur judiciaire gi ñu deful moo leen suñu borom génn leen fa delluwaat leen seen i ñi de doit dina suñu borom xale naa aussi gaay te yéexee ñu en avance ensemble dans la magie de Sport TV et de

ñu tàmbale ko ki nga xam ne donc kii di Valverde mo l'a di posté lii ah photo mom ak ki nga xam ne donc Brahim Diaz euh, du Maroc Brahim Diaz mi nga xam gars fi mu toll ni bu ko neexoon jouer pour Espagne mais il a décidé de jouer pour li nga xam Maroc motax man ma am respect pour waji ni donc Brahim Diaz pendant ce temps également ki mooy donc Lucas Hernandez moom nee nak dañuy dem du côté du FC Barcelone pour daal am ndam qualifié ci nga xam ne mooy donc ci Ligue des Champions ñom ñi nga xam nag dañ fekk seen deuk dóor leen dañu leen dem dañ leen fekk seen deuk daal di leen di dóor donc aujourd'hui il doit avoir une victoire donc pour espérer également mën a ci beneen pàcc pendant ce temps Atlético Madrid ñi ngi waxtaan ak Antoine Griezmann pour daal di koy proposer prolongation de contrat Griezmann mom lolo bëgg jeexale carrière Atlético Atlético également lolo daal di bëgg moo ngi dox di ci tek ay jéego jëm ci également ki nga xam moy donc ki di Xabi Alonso gagné guñu championnat bi mais gars yi tuddee nañ ko ben rue ben allée loko supporter euh, ñi nga xam mooy donc Bayer Leverkusen daal di tuddee pour wane également que ne bu gagné trophée bi dina def lo xam ne gars yi gëj na am du côté donc du club du Bayer Leverkusen mais aussi cinq joueurs africains tey dinañ jouer ci li nga moy donc du côté du Bayer Leverkusen ci seen match ñom ak Werder de Brême hein. donc match boo xamna ne gars yi match pour le titre la buñ ñu tay mom mënu ñu waxati hein, ba leneen am lu ñom ñu daal di jël championnat bi ndax Bayern moom ñu ngi ko bàyyi ca ginnaaw ak ginnaaw ak ginnaaw ak ginnaaw pendant ce temps nag ki nga xam ne ko Naby Keita moom nag euh, ba mu yëgee ne loolu direction Werder de brem wax ba mu yëgee ne tey du démarrer match bi contre Bayer Leverkusen dafa ñëw ba ñu waaj yéeg si bus mu wàcc dem yoonam donc yéegul ci bus bi ñi nag di waa euh, club bi nee nañ dinañ waxtaan ak agent am xool yan daal lañ koy daal di daan mais aussi ñi nga xam mooy donc Fulham ñoo daal di dóor West Ham 2 buts à 0 avec le doublé de Pereira Fulham ñi ngi ci dynamique bu baax a baax donc ñom ñoo daal di tay ñam donc West Ham donc West Ham aussi nekkoon ci dynamique mais temps yi dañuy xam ne dañoo xaw voilà dañuy tagaté mais dal motax xam championnat Angleterre dafa dafa yéeg quoi dafa yéeg coup dur pour Liverpool Liverpool yi nga xam nag ñii di waa Crystal Palace ñoo leen daal di dóor un but à 0 à domicile lañ leen fekk daal leen di dóor dóor fekk si leen dóor leen loolu ñaaw na lañ leen def ki nga xam ne également mooy donc ki nga xam ne mo ngeen ñu wax ah muy Darwin Nunez tey dafa mer sax ndax bu muy génn dafa doon kaas ne waru woon génn mais également Liverpool qui s'éloigne de tous les titres pour la dernière de Jurgen Klopp c'est sous l'ère de Sadio Mane Le jëlee championnat anglais mais également la Ligue des champions et Sadio Mane va rester dans les annales du football donc de Liverpool et des Reds bien évidemment pendant ce temps Mamba du côté de la Turquie nous na son sixième but l'international sénégalais champion d'Afrique 2022 ak faut nous donc chez Cameroun mais aussi Jamel <laughs> Belmadi def ah, Jamel Belmadi def. Jamel Belmadi na dem ci nga donc FIFA da di porter plainte nga donc Algérie ndax dafa japp ne rek euh, ñu contrat am baaxul mu laaj lu ah, donc 12 millions d'euros, 12 millions d'euros, 7 millions d'euros, plutôt 7 7 millions d'euros 4 muy mengo milliards. cinq cent et quelques millions yu ñu toftal daal da leen laaj pour daal di dàkk ay ndàmpaay muy li ko des woon ci ay weeram <laughs> moom yi nga xam ne gars yi dafa dëgër boobu ba fin bi def na loo xam mooy donc résultat yu bon mais nee na du bàyyi moom daal nee na du daal sept millions d'euros di daal di laaj pendant ce temps Mory Diaw moom nag gars tey dafa mer ba futtu ba joteeg supporter yu clair li ko waral nag mooy ñoom ñoo mëne woon ah, ci seen match tey bi après ñu daal di leen di euh, donc fekk ci match bo xam nak donc Mody Diaw était gardien ma bàyyi leen ngeen xol réaction mais dal nek na réaction boo xam ne doy na waar hein, pour également que aujourd'hui ah Mody Diaw bu gisul du kaas mais bu casser c'est parce que amna na lu am donc gay ñu bàyyi leen ngeen xol mais aussi den ci jaar dina wax donc aujourd'hui ngeen way di like di way di abonné on avance ensemble dans la machine de Baba Show et des sportifs yi su baaxee ci la gars bonne bu ne la jaa jëf